alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaiin amma baad noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala mi dara wumpul mi xam lépp sunu borom moom yi nga xam ne wàcce na ci téeréem bi lépp muy lu rëy fa bëti nit ña walla muy lu tuuti fa ñoom di ko sant ci mayam yi nga xam ne yemul fenn di seede amut kenn ku yeyoo dara ci xeeti jaamu ku dul moom di seede ne Muhammad ibnu Abdullahi ab jaamam la di ndawam loo xam ne da ko yónni ci nit ñi muy bégal ña jub di xupp ña dëng yal yàlla dolli ci moom ay xéewal ak mboolem képp koo xam ne gëm na ko topp ko ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla ndax ragal yàlla ak leer la goo xam ne bu ko jullit bi jëfee di ko niitoo dana ko xàllal yoon wi muy jaar sunu borom tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla su ngeen ko defee dana leen defal ak leer goo xam ne dangeen ci mën a xàmmee la baax ak la baaxut te su ngeen ko defee dana leen jéggal seeni ñaawteef ndax borom bi borom xéewal yu màgg la bokki jullit yi bokk na ci xéewali sunu borom tabaraka wa taala mu di téere bii nga xam ne moom la wàcce ci yonent bi ngir mu jot li nu ko muy téere boo xam ne lépp lu nekk ci sunu dund ci ay tànk-tànk wala ay jafe-jafe téere boobu indi na saafaraam lépp loo xam ne lu baax ci nun la dinu nu texeel wala mu bon ci nun di nu texeedil téere boobu leeral na ko téere boo xam ne lépp dëgg la lépp leer la dara ci xeeti neen wala xeeti lëndëm nekku ci kooku mooy waxi sunu borom tabaraka wa sunu borom mi nga xam ne dara wump ko fii ci àdduna ak feneen xeetu lislaam toroxut lu dul ba mu bàyyee téere boobu ci gannaawam xeetu lislaam réerut sànkuwul jaaxlewut lu dul bi mu bàyyee téere boobu won ko gannaaw tàmbali di gëstu yeneen i bunt yu doomu aadama mën a jaar ngir jubbantiku wala mu mën a aw ci aw yoon di ko gëstoo ci ñeneen ñoo xam ne ay bindeef lañ yoo xam ne la ëpp ca la ñuy def njuumte la lu néew a néew ca la ñuy def mooy dëppoog lu jub moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku won gannaaw sama téere bii day xam leen ne dana dund dund bu jafe wa man arada an dikri ku won gannaaw sama téere bii fa inna lahu maishatan danka fii ci àdduna nee na dana dund dund bu jafe kon jullit yi buñ dee dund dund bu jafe buñ am mbett ci kaw bu fekkee ne dañoo won gannaaw alquran mbokki jullit yi bokk na ci yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala xabaare nanu ko ci téere bu mat boobu yi nga xam ne bàyyiwul dara aw nit ñoo xam ne wax nanu ñooy ñan ba noppi digal nu nu wattandiku leen nit ñooñu ñooy ñan ñooy ñi ñuy tudde al xeet la woo xam ne wu baaxut la mooy melokaan wi nga xam ne mooy wi gën a jaadu ci wuñ leen di melale képp ku leen xam ci seen dëgg-dëgg ni leen alxuraan melale ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ku leen xame ci alxuraan doo am mbett ci li ñuy dund tey ak mbokki jullit ya nekk fële ca Palestine ak li ñu leen di won kon ay kàdd yu gàtt lañ fas yéene wax ci ñoom ci lu aju ci jataay bi wala taxawaay bi e, tudde ko al yahud kama wasafahum al quran maanaam yahud yi ni leen alquran melale melokaan yi nga xam ne noonu la borom bi tabaraka wa wax ne ni lañ mel ba ca njëkk mooy ñi gën a ñàkk kersa ci seen kanam boroom ñi gën a mën a xotti wormay seen boroom boroom bi nee na yahood yi wax nañ dem nañ ba àgg ci sax ñu ne loxo bi yàlla dafa làggi wala yaasu billah loxo bu làggi buñ ko waxee mooy ku nay koo xam ne du joxe dàkkental la borom bi nee na wa lu'inu bi ma qaalu nee na ñu rëbb lañ ci sababu su wax yi ñi wax bal yaddaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa nee na moom kay ñaari loxoom lu tàlli la moom suñu borom tabaraka wa taala nu ko neex noona lay dépenser noona lay joxe kon kuy joxe la jox ko ku yor am-am bu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon kooka munta nay kon su yahud yi demee bay melal seen borom ci ne dafa nay kon loolu dafay wane ne ak ñàkk kersa lool la ak ndëngte gu àgg fu sori la ci kanam seen borom tabaraka wa dem nañ sax ba àgg ci ne yàlla faqir la maanaam ku ñàkk waliyaadu billah laqad sami'a allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir nee na yàlla dégg na waxi ñi nga xam ne seenu ñàkk kersa ak seenu mbon àgg na ci ñu dem ba yàgg ba àgg ci ne yàlla ku ñàkk la nun kay noo am wa nahnu agniya yàlla nee na baax na sa naktubu maa qaalu danañ bind lii ñu wax mu di leen xaar ba ëllëg wa qatlahumul anbiya ak rey gi ñu doon rey yonent yi yooyu yépp danañ ko bind nége leen ko bu ëllëgee ñu ne leen mos leen mbëgalum lakka ngoog nag ba xam nu ngeen di def yahuud yi noonu la ñàkk kersa ci kanam yonent yàlla yi borom bi ne fasante na ma ak yahuud ya kóllëre muy banu israil yónni ci ñoom ay yonent kon li ëpp ci yonent yu yàlla masa yónni ci suuf ci xeetu banu Israël ci la ko yónnee maanaam yahud yi ñoo ëppale ñépp ay yonent dañuy wax ne nag bari ay yonent yuy wàcc ciw xeet loolu du caagi nit du tiraanga du tiraanga ci ñoom ndax yonent fa gën a dëng foofa lay tàmbalee di jubbanti kon bari yonent yooya dafay wane ne foofa mooy fa gën a lëndam fa gën a aajowoo leer nee na yónnee naa leen ay yonent saa bu ab yonent dikkee indil leen loo xam ne jooyoo na ak seen bànneexu bakkan nee na ñu weddi ñenn ña ñeneen ña ca des ñu rey leen kon weddi nañ ay yonent rey nañ ay yonent wala yaasu billaah borom bi nee na ñooñu ñoo torox ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ay miskiin ñoo suufe li ko waral nee na dañoo weddi bépp kéemaan bu jóge ci sunu boroom tabaraka wa moo xam bu ñuy jàng la wala bu ñuy janool bu ñuy gis nee na la ca tegu mooy dañuy rey ay yonent dañuy rey ay yonent kon kooka ñàkk kersa mënu koo weesu nee na àgg nañ ci ñu ne sax nun noo rey isa ibnu mariam maanaam yonent bi yàlla bu tedd boobu yi àgg na ci ñu ne nun noo ko rey yàlla neen reyuñu ko daajuñu ko nañ wax ne na lañ ko def waaye nee dañ leen a wutal keneen kum nuroo kooka lañ rey waaye isa alayhi salaam moom reyuñu ko waaye ñoom àgg nañ ci sax di damoo loolu di wax ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo rey isa kon nit ñoo xam ne seenu dëjërle ci seen kanam boroom àgg na ci di ko tuumaal ci yëf yoo xam ne ak wàññiku la seenu dëjërle ak seen ñàkk ci kanam yonent yi àgg na ci di leen rey seenu dëjërle àgg na ci jéem def pexe yuñ mën ngir rey yonent yàlla boobu nga xam ne mooy isa te bokk ci ulul azmi min ar-rusul ñoo xam ne noonu lañ mel ndax mën nañoo jàpp seen loxo ci dereti jullit ñi tey buñ mënoon a rey xeetu lislaam bañ jeex kon danañ ko def kon danañ ko def moo tax borom bi tabaraka wa taala mi leen xam xam seen mbóot xam seen la ca biir nee na la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lilladina aamanu alyahud ña gën a tar ak noono ci ñii gëm yàlla muy jullit yi nee ñooñu mooy yahud yi walladina ashraku nee na ak bokkaalekat yi kon ñi jub nekk borom iman nekk borom tawxid jaar ci siraatul mustaqim seen noon yi gën a ñaar lañ mooy yahud yi ak bokkaalekat yi ànd ak loolu lépp mbokki jullit yi alxuraan melalal nañu yahud yooyu ne ñooy ñii gën a ragal ci kaw suuf ay bàqaar lañ ay ragal lañ yoo xam ne ñemewuñoo jàkkaarloo deret di tuuru suñ ko defee tam du yàgg du yàgg làqu fi béréb daal di sànni lañuy ñuy mën a def waaye bu ca dara desu du du jàkkaarloo du yàgg xoolal melokaan wi leen alxuraan jox ak niñ mele noonu tey borom bi nee na wala tajidannahum axrasa nnaasi ala xayaa ñooy ñi gën a xër nit ñi ci ak dund maanaam des fii di dund moom ñoo ko gën a bëgg ñépp kon nag ku ak xëram ci dund àgg foofu xelam xalaatul di jaamaarloo di xeex xeex boo xam ne xam na ne mën na caa faatu nee itam laa yuqaatiluunakum jamian illa fi quran muhassana nee na duñ xeex ak yéen jaamaarloog yéen di xeex ci maydaanum jihaad lu dul dañoo dugg ci biir ay néeg yoo xam ne dañ koo tëj maanaam ay tata yoo xam ne kenn du ca mën a agsi ñu yéeg ca kaw njobbaxtan la di sànni ay fett wala ñuy sànni bali leneen mu ne aw min waraa i judur wala ñu fexe ba ay miir yu mag dox seen digganteek ñoom gis nga miir yu rëy yi ñu def seen digganteek jullit yi tey pour ragal ne suñ ko ubbee ay nit mën nañ faa jaar ay mujaahidoon ñëw am lu ñuy def ci seen biir bu ñuy sànni jullit yeeg leen rey ngir daw seen roquette yaa ngi leen di sànni ci wara juddur yooyu dem na ba ci biir essart de combat la ñuy làq yoo xam ne ci weer lañuy ñuy xoole nit ña la leen wër lépp doon ay weñ yoo xam ne bal mënu koo bët waaye bu dara desudul du wàcc ci suuf jaamaarloo dañuy wane gannaaw daw kon yàlla mii leen bind moom moo xam ñii ñooy ñan ba ca tegu mooy ñi gën a mën a woyefal kóllëre maanaam accord du dox seen diggante ak wenn xeet lu dul ñu woyefal ko noonu la leen alxuraan melale yàlla nee na ay workat lañ nee na duñ matal kóllëre nee na mosuñoo def kóllëre kóllëre giñ fas ak yàlla sax fecc nañ ko kóllëre giñ fas ak yonent yi ñu wëlbatiku rey yonent ya loolu moo waral li wàcc ci ñoom ci ay mbugal ci sababu kóllëre gu ñu firi ay mbugal yu baree bari la borom bi nee na li tax ma wowal seeni xol ñoom yahuud yi nee na li tax ma wowal seeni xol mooy séenug mën a fecc ci moo tax ak lépp loo xam ne yàlla wàcce na ko ci ñoom ci téere ñu soppi ko ba dëppale ko ak seen bànneexu bakkan kon koo xam ne day soppi téere bi yàlla boole ko su defee kóllëre wala li ñu tuddee accord daal di koy yàqaat nee na loolu moo tax seeni xol nekk yu wow nee na wala tazaalu tattaliu ala xaainatin minhum illa qalilan minhum nee ñooñu li feeg ñi ngi fi rek nga di leen gis ñuy wor li feeg ñi ngi fi nga nekk fi ngay defante ñoom ay colère da gis ne ay workat lañ moo tax borom bi ne saa boo xamee ne fasante nañ colère am benn kuréel ci ñoom boo xam ne day ñëw fecc colère boobu awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum saa boo xamee ne fasante nañoo ak yéen benn accord beneen kuréel boo xam ne ci seen biir lay bokk mooy ñëw firiwaat accord boobu loolu ku xam ni jamono di doxe tey ak fi nga xam ne foofu lañ jaar ak jullit yi yaakaar ne manees naa am ak ñoom ay kóllëre da nga gis ci seen biir histoire ñaata kóllëre lañ fasante jullit yi ñeneen ci seen biir ñëw firiwaat ko musiba mu continuer nekk fa mu nekkoon ba suñ jonne tey rawatina gannaaw boo xamee ne wàcc nañ ci biir suufu Palestine depuis 1948 ba ci suñ jamonoy tey jii kon mbokkum jullit mi dana doon lu kéemaan lool loo xam ne war naa mën a def ab jullit buy xalaat war naa mën a doon ci moom problème wax dëgg yàlla nan lay amee ay jullit yoo xam ne ci seenu xeet ñoom ci seen jëmmi bopp muy arab yi ci la alquran wàcc melal ñii melokaan yii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi xam ak dundam ak siiraam ak yahood yi bépp accord bu mas a defanteeg ñoom firi nañ ko gis taxawaay ba mujj taxaw ci ñoom muy nangootu la def ñoom benn kóllëre jaamaarloo rek moo fa sosoon nan la ay nit di mën a doone ay jullit bokk ci askan woow yi nga xam ne alquran ci ñoom la wàcc yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk ci seen biiru askan feeñ ca dund la mu dund ñi melal kuréel bi ci melokaan yu mel nii ba noppi ñii wëlbatiku jàpp ne ñii daal waris naa mën a am ak ñoom kóllëre ci suñ jamono tey ji loolu jàpp naa ne ay nax yu mag a mag la yoo xam ne jullit yi ñu ngi koy dund tey ak wan gannaaw alxuraan boo xam ne lii ñuy gis ci ay musiba yu wàcc ci jullit yi tey ñàkk a jëfe li leen alxuraan wax loolu moo ko waral ak doya di la lool kon ay jullit di dukki-dukki ci gannaaw ñooñu di jéem a sàkku seen ngërëm te borom bi tabaraka wa loonu leen ba àgg ci julli gi nga xam ne da koy jullit te saa boo jullee da jàng fatiha borom bi tabaraka wa taala digal la ci nga wax ne ihdina siraat al mustaqim yal nag ma gindi yow yàlla yoon wi gën a jub ci yoon yi siraat alladina an'amta alayhim yoonu ñi nga xam ne sotti nga ci ñoom say xéewal te ñooñu ñooy yonent yaag ñi leen topp te musal nu ci almaxdubi alayhim ak addaalin mu ne gayri almaxdubi alayhim wala addaalin musal nu ci ñi nga xam ne da nga leen a mere musal nu ci ñi nga xam ne itam dañoo réer ñi mu mere mooy ñan ak ñi réer mooy ñan ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nanu ko ci xadisu adi ibni xaatim nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ma ñi yàlla mere ñu ñooy yahood yi ñi réer ñu ñooy nasaraan yi kon jullit bi borom bi tabaraka wa taala digal ko ci faatixa yi nga xam ne ay yoon yi yoon la koy jàng ci bis muy wax ne yàlla yàlla nag ma musal ci yoonu ñooñu muy yahuud yeeg ñañ àndal wala ñañ jegeel ba noppi wëlbatiku jàpp ne ñooñu faatiha ji nga doon jàng li ci nekk mën nga ko woon gannaaw jaxasoog ñoom jàmmoog ñoom ngeen bokk nekk ci leneen ma ne loolu jàpp naa ne ay nax la yoo xam ne jullit yi ñu ngi koy dund tey ci kaw suuf muy benn màndarga ci mandargay doyadik jullit yi li gën a doy waar mooy réew yi nga xam ne ñoo séq Palestine te doon ay réew yi jullit ay réew yoo xam ne ñu am doole lañ ñu war a mën a euh, jeexital ci adduna bi seen mer rek war a mën a soppi lu baree bari ñooñu ne yàgg ñëpp ne cell kenn waxut deful dara ba yëf yi jeex jeexut sax waaye ba mu dal kenn ku nekk nag di tàmbali naan joxe naa nangam pour ñu mën a tabaxaat lañ tojoon ñii jóg taxaw naan man pare naa pour maye deret ñi naan def ne ni nangam nangam loolu la ñoroon mooy fekk musiba mi ba du am waaye du mooy xaar ba musiba mi jeex nga ne damay ñëw tabaxaat lañ màbboon bu ëllëgee ñi ñëw màbbaat ko nga ñëw di tabaxaat kon loolu ci doyadi yi dal jullit yi tey ci la bokk borom bi tabaraka wa taala wax nanu ko nee na walan tarda anka alyahud wala nasara xatta tattabia millatahum fi ngay amee seen gërëm daal fenn la mooy nga bàyyi sa diine topp leen noonu rek la amut beneen yoon boo xam ne fa nga mën a jaar kon nag jullit yi su fekkee ne bëgg nañoo yeyoon dimbalal sunu borom tabaraka wa taala bëgg nañoo dellusiwaat jaaraat ci siraatul mustaqim yàlla fegal leen seen i noonu faaw ñu dellusi ci alxuraan gëm lim leen wax jéem koo dund allahuma aiz al islaama wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wansur man nasara ddin waxdul man xadala ddina ya rabbal alamin allahuma ansur ixwanana fi falastina wa fi kulli makan allahuma uh, ansur ixwanana almujahidina fi kulli makan alladina yujaahiduuna fi sabilika litakuna kalimatuka al-ulya allahuma ighfir lilmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat alaxyaai minhum walamwaat allahuma aafina fi bildaanina allahuma axfaz lana diyaarana wa buldaanana ya rabbal aalamiin wa salla allahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala